أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau pour s'en ay cuisine wala sen toilette ay grepoli poli 60 60 ay plainte wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp ci bir Taïf caro ay caro espagnol 60 60 wala 40 40 mars escalier wala contre mars a ah, mbok yi lepp lo soxla ci walu matériel sanitaire gawal gaw ñew fi ci Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal clients yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a seen kër ba mu yëpp bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. di sama Cameroun Cameroun naa maa ngi waa Cameroun naa ngi lay ziar waaw di bëggee ñëpp waaw. maa ngi bëggee ah, Samba Sarr maa lay siyaar di la bëggee mon frère ah. waaw mon frère il est là à Dubaï ah Samba Sarr le milliardaire. ngi lay siyaar di la nuyu I love Cameroon ah I love Cameroon I love everything تمام المكان اللي احنا رايحينه ده يا عمده الابو ظبي هياخد لو عندي وحده مثلا something.com. Yes, no problem. akan jambar. Ka do yaay. Waaw sa lamp fu ma nekk lamp bu mooy loolu. Ah, baar nii sax yàlla xam. Gars yi ñu ngi wax combat bi di bind sànq si commentaire bi sa combat ak Boy Niang. Waaw combat Boy What is this? Hmm. combat bi ñaata mois ñoo si def combat ak Boy Niang le premier le premier lii la janvier le premier janvier inchallah allah pare ah mais sa combat ak mais il faut qu'on le prépare Dubaï wala euh ngi xool daal xam naa ni solo ma demee Amérique incha allah maa ngi xool. mais bi doo ci bëgg xeex wala bëre sa combat ak Boy Niang. xeex bëre dañ koy xeex bëre Fadam Fadam maa ngi koy ziar. <laughs> mais waa làmb na mun nag doom yaay billaay walaay làmb ji fan yi neex. te xam nga fi manqué. wallaay maa waa làmb bàyyi rek. billaay boo wàccee ñu xam ne am na doole. bu wàccee gësëm. commentaire yi ñu ngi lay wax naa pour nga wax si Boy la maag ji day neex eh. waaw Easy work. Easy work. Yeah, Sadu. You know, seven yes. Yes. Salaam I remember this guy. I remember this guy. I have you with you, huh? You say what? <laughs> I'm gonna go see you with you. You say, baby, huh? <laughs> Salaam alaikum to everybody. Alaikum salam. Bro, ziar na Allah. Wa dole ziar. Ziar na Allah. Awaar. sant. delloo ziar ma ni rek gars yi sànq ñu ngi leen sa combat ak Boy Niang loo ci préparé. rek rek mu wax. yow what's up bro what's king. what's no you you you king you the king bro. <laughs> ok ok. mais mais mais bro. waaw. waaw jàmbaar waaw. Eh, doomu daangu combat bi ñaanal gàndam boobu. mi ngi si waaw waaw waaw daangu ñu ngi koy ñaanal ndam lu rëy. waaw lébu bi waaw na ko yàlla may ndam ah. allah. waa gisoo. incha allah. waaw na jaar fi ma jaaroon waa ji waa ji waa ji doon. rëg rëg gars yi jàngal leen jàngal leen wolof boog. waay gars yi dégguñu wax jaay. bro you

champion nag waar. waaye naa si ànd si loolu nag. sama yenn si. maa rek gain. maa ngi di ñàkk di ñàkk solo di ñàkk solo. waaw ñu gën a am expérience yaa